tey xibaar ca Fatick daañ fa doxantu wax nag euh, sa daaroo commune bu Ndiosong Euh, foofe doxum ñaxtu la askan woote nit ki euh, démb la ñu doon sàkku moo di ab courant ñu daal di koy am ci dëkk ba ndax dañoo tàyyi dàmm nañu ci saa su ne bu timis jotee kenn du génn ndax lëndëm loole la ñu bëgg mu dakk dinañ def ak taxaw seetlu it jëm ci assemblée nationale xam ngeen ni ñoo ngi ci euh, campagne électorale bi jëm ci législative bi fanweeri fan ak benn ci weerub juillet tàggat yaram ñu ànd a seex Pape Mante boobu li yéene kay xëy fësal Mantulaay ci bundooy ngeen taaxir lu ñu xuus si faram gi kon Yacine mën nañ doxal. aywa dañu waxtaanee kon nag procureur ba nga xam ne ni ki démb la doon amal janoox taskatu xibaar yi ngir andi ay leeral euh, ci faatuk François Mancabou ma nga xam ne dañu ko tegoon loxo ci manifestation coalition Yewwi Askan Wi mu sukkandikoo ci di juuf moom procureur ba euh, moom nag la mu xam le moo de ab l'enquête dañ ko ci ubbi ngir nag xam ani mbiri lan moo ko sooke ab autopsie it sàkku nañu daal di ko cay amal euh, ñu teewlay kàddoom moom procureur ba Amdi Diouf ak Fatoumata Diop bi ñu demee këram nag ba fekk ko fa yàlla def na fekk nañ ko mu fekk fekk ak fetal bu ñuy ooyee tipp Walter Calibre 22 fekk nañ fa aussi ay bal euh, yàlla def na aussi euh, enquête bi wane na ne waruloon téye fetal waruloon téye munition parce que amuloon autorisation de port d'arme après information man yi ñu ma jox procureur te PV bi te enquêteurs yi wax ma ko que moom on ne sait pas pour quelle raison xamuñ lan moo tax maa ngi bëgg a wax nag ne enquêteurs yi yor nañ ay caméra vidéo yoo xam ne incident bi yi ci am yu ci bëri mën nañ ko documenter ah par des video et des caméras de set de 13 minutes yoo xam ne wax naa leen ñu indi ko ñu dugal ko ci enquête bi nga xam ne jox naa ko waa division des investigations criminelles enquête boo xam ne suma autorité directe lañ koy defee. plus c'est une c'est une enquête qui sera conduite. sous l'autorité directe du procureur de la République afin qu'on puisse savoir xam lan mooy cause exacte décès euh, François Mancabou lépp lu si yoon war a def dinañ ko def taxawaay biñ ci waroon am dinañ ko ci def euh, et que dès d'ores et déjà je pour vous dire en rapport avec euh, l'ordre des médecins une autopsie a déjà été ordonnée enquête bu jaar ci yoon autopsie bu nga xam ne ni xel du sa tey loolee la njiital Amnesty International di sàkku bànqaasam fii ci réewum Sénégal Seydi Gassama li moo di kàddoom xam ngeen ne François Mancabou dañ ko jàppoon tuumal ko ne dafa bokk ci force spéciale yi ñu daal di ko yóbbu sûreté urbaine ah, bi mu fay demee nag wéroon na dara jotu ko téye ko fa ay fan finalement foofu la amee ay problème ñu daal di ko jël yóbbu ko euh, principal mu nekk fa réanimation lu ëpp ay semaine nekk fa réanimation euh, finalement dëmb ñàkk na bakkanam ñun li ñu laaj mooy na na am bu leer bu leer boo xam ne dina euh, leeral ñaan circonstance ñaan anam la amee accident boobu parce que certificat médical bi ñu ngi wax dafa amoon accident accident moo ko rey nit koo xam ne nag ko ci biir këram dara jotu ko dox ak tànkam bépp au commissariat central mu nekk en garde à vue ku nekk garde à vue nag loolu mooy police dañ la war am ci seen i bët xam moom nooy mu ne euh, def accident ci biir violon violon police kon on demande des comptes su dee c'est établi que évidemment dañ ko torturé ah, incha allah ñi ko torturé ak état Sénégal ci boppam n'est-ce pas ils vont rendre xanaa rek ci tënk di leen fàttali ni kon waa RADDHO di du euh, kon nag euh, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme waa Ligue sénégalaise également des droits humains Amnesty International ñoo tënku ci ab communiqué dëxëñ ci seen i kàddu di sàkku kon ñu andi ay leeral ci génn kàdduna François Mancabou nga xam ne fukki fan ak ñett ci weeru juillet démb Euh, ci anam gu nga xam wala sax barki dem ci anam gu nga xam ne nii nee nañ tey na xel lool ci ab bataaxal boobee ñoom ci boppam ñu ngay fàttali ni kon François bu boobee de hôpital principal la nu ko andi ñaar fukk fan ak ñett ci weeru juin euh, ci anam gu jéggi dayo euh, maanaam ñu gis ko ci état bu doy waar te nag moom wax na ay jege ñaaleem ne kon dañu ko dóor dóor yi metti ak traitement bu nga xam ne ni daraawu ci yoon sa kaso ba Euh, njabootam sax ak ay avocat am nee na ñu ba mu nekkee ci boobu lépp état sàkku nañu utub médecin ngir mu dem xool wér yaramam waaye dañu leen ko bañal euh, ñu andi ay leeral rek euh, jëm ci kon dañu ko rek kenn placé ko woon su mandat de dépôt ba muy génne àdduna RADDHO Ligue sénégalaise des droits humains Amnesty International di fàttali ni kon autorité sénégalaise yi ne kon nag dañu xaatim convention Nations Unies nga xam ne dafay bañ ku torturer maanaam toroxal ak dóor. ñi nga xam ne caabi def leen euh, féete ginnaaw sàkk nañu it ñu ubbi ab enquête bu indépendante ngir ñu andi ay leeral ci François bu waaye it procureur de la République mu ngay sàkku ab euh, autopsie nee na ñu euh, yéenekaay dikk nañu si Birahim lim gi mu ngay bëgg bari ñoo xam ne caabi daf leen ginnaaw ñu dexe fa ñàkk seen bakkante lu ci bëri ba léegi dossier yi dafay traîner. mooy loo xamee ne nag il faut nécessairement que mu am luñ ci leeral ci wàll woowu parce que mënuñu chaque. très régulièrement ñi lay wax diw faatu na ci kaso bi moom moo pendre boppam wala moom moo def nangam boppam wala kii moom moo mbëkk mur wala mbëkk gris euh, ak yu ni mel euh, le 17 la ñuy jàpp François bu le cinq lañ ko interné hôpital principal selon en tout cas le certificat de de genre de mort bi ñu euh, avis de décès bi nga xam ni joxe nañ ko parce que am na nuance entre avis de ak. Euh, li nga xam ne moom mooy certificat de genre de mort parce que certificat boobu normalement c'est après euh, bii nii en tout cas dans le cadre d'espèce dañuy xaar ba euh, médecin légiste bi def li ñu woowee autopsie pour xam lan moo faat kooku di Mancabou mais mort accidentelle la ñu bind ci hôpital principal mais bu ñu lay jàppee le 17 ci mois de juin le 17 ba le 25 juin lañ lay doog Euh, dugal hôpital principal ça veut dire que du au 25 euh, ça fait huit jours mais jusqu'à aujourd'hui en tout cas ci li ma déggee dem procureur waxuñu ni il est sous mandat de dépôt donc garde à vue la woon mhm. prolongé euh, garde à vue boobu ba avant muy jeex la ko la am en tout cas li ko dal dal ko bu ñu yóbbu ko hôpital principal depuis le vingt cinq mais Mambay la logique aurait voulu bu fekkee ni yow jàpp nga ni laale woo ci say service laale wuñu ci police laale wu ci gendarmerie feneen ak feneen laale wuñu ci mais am na ay mbokk dugal nga capital le vingt cinq mu faatu le treize ou le quatorze le treize la faatu du vingt cinq au treize lu la tere yow nga wax ak soxnaam wax ay ak ay njabootam preuve bi nga wax ne ni am nga vidéo treize minutes tel leen na wax ne leen attention ki lii moo ko indi hôpital principal pour que bu dara xewee ci diggante bi ñooñu ñoom seen bopp ñoom ñooy weddi tuuma ñoom ñooy xam ne ni attention procureur lii mu wax dëgg la parce que on nous avait averti avant que lii moo ko indi hôpital mais du 25 au 13 absolument aucune information concernant ce euh, ce manque à gannaaw bi ñu ko jàppee plusieurs jours mu nekk ko ci position de garde à vue ça veut dire que ba léegi amagul mandat de dépôt mais je reviens sur benn journal je pense c'est Sud qui qui en parle ou euh, di wax ci tuuma yi nga xam ne dañ koy indi tey ndax code de procédure code pénal dafa indi lu ñu woowee loi sur le terrorisme boobu ñu ne est-ce que cette loi sur le terrorisme doit mener à tu dañoo indi lu bees si biir suñu code pénal di wax wàllu terrorisme tax na ba tey bu ñu jàppee Mambay tuumaal ko ni am na euh, activité terroriste wala njortale nañu ci moom activité terroriste léegi bu ñu doon wax ni garde à vue day doon quarante huit heures renouvelable ñu dem ba quatre vingt seize heures doot ñu ko dépassé mais dañ la naan ndax instruction ndax wàllu garde à vue wàllu terrorisme mën nañ la téye lu yàgg pour gën a continuer enquête bi gannaaw ñu doog la teg ci mandat de dépôt noonu la demee par rapport ak bu est-ce que am na lu ñu woowee violation de ses droits parce que même le détenu bi nekk ci kaso am na droit waxatuma laa koo xamee ni tegaguñ la ci mandat de dépôt ma parce que tu es toujours présumé innocent mhm. tuuma lañ teg ci yow tant que lu ñu ni tuuma yi ñu teg ci yow c'est euh, confirmé ou pas wala ñu dindi ko parce que procureur euh, juge d'instruction bi bu ubbilee ubbi euh, enquête juge bi dina instruire à charge comme à décharge xool na ni. am na loo xamee ni dañ ko teg ci diw. waaye euh, bëgg naa ñu def ci enquête boo xamee ni dafay firnde loolu am na wala mu weddi ni loolu amul mais quant à l'histoire de plusieurs personnes qui ont été dans les liens la détention muy ci kaso comme muy ci biir commissariat ñu ci gis ay nit ñu ciy faatu mhm. ba pare on passe ça par perte de profit c'est que léegi dañoo dem ba dañoo banaliser la mort d'une personne dañ ko banaliser magum jëm yore ay njaboot yore ay doom yore soxna wala lu mu mën a doon ñu mën laa faat noonu wala nga mën a faatu ba pare bu ñu toogee un mois deux mois après les gens ils l'oublient ils sont sur autre chose ça ça commence à être assez dangereux au Sénégal et ce n'est pas bon je je je pense que mais association des défenseurs des droits de l'homme yi nga xam ne yëkkati nañu seen i kàddu ci wa mais ba ci euh, sànq maa ngi lay tudd ku ci mel ni au niveau du ministère de la justice mm -hmm. le directeur de des droits humains moom daanaka dafay dépendre directement sax ci euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Nations Unies je sais que dina am liggéey bu ñu ciy def sur ce plan là lieu observatoire des lieux de de privation de liberté ñoom dañu am tamit walla ci wàllu woowu pour gën a exiger ñu def fi enquête mais enquête indépendante mhm. est-ce qu'on doit donner ça à la police ou à la gendarmerie ou à un des démembrements de la police ou de la gendarmerie c'est une interrogation la beneen intégra interrogation moo di Pape du sekk moom it ci force spéciale la ñu koy tudd euh, démb administration pénitentiaire amal nañu janox taskatu xibaar yi di euh, ñaaw lu anam nga nga xam ne noom la rëccee ñoom nag nee ñu li ñuy njàkk mënees nañu jàpp ne ñoom ñoo di njàkk ndax d'accord nañu ni bu rëccee seen ak càggante la kon nag dinañ def seen kéem kattan ibbub l'enquête ba xool càggante ga ba mu féete ñu ànd seen Ndeye Khady Diouf Évasion du détenu Pape Mamadou Sek, l'administration pénitentiaire reconnaît ses failles et annonce la prise de mesures conservatoires. Une enquête administrative a été ouverte et confiée à la division de l'inspection des services pénitentiaires. sans préjudice des ñu ci kàllaamay nasaraan gi laata ñuy dem di ko waxtaanee Pape Mamadou Seck jàppal ne kon administration pénitentiaire ñu ngay sàkku ci yow foo ti nekk nga daal di dikkaat dañu la tuumaal nga ñëw euh, weddi tuuma moo gën ngay daw te nag sax wér-gu-yaram mayu la sax ngay nekk foofee ay kàddu la yu nga xam ne Jean Bertrand Bocandé moo ko yëkkati ñu teewlu ko. li mu def juumte la juumte la na delloo si xelam na delloo si xelam ñëwaat. pour ñaari mbër bu njëkk bi mooy mu ñëwaat dellu si faju faju benn ñaareel bi na dellu si teggu tuuma loolu je crois que loolu moo ëpp solo wax nañ la def nga dara yow jàpp nga ne def def defoo ko mais ñëwal nga taxaw nga teggu tuuma voilà ñoom au moins d' accord nañu kon bu fekkee Pape Mamadou Seck dafa dafa rëcc ñoom seen faute la te noppi nañu ndax ñu ngi defa blanquette seen biir pour xam sàggante gi fa la féete. mais responsabilité weesuwul nga yëkkati kàddu ne ni le verre est le fruit on a une part de responsabilité. Mhm. lii mooy pour man kàddu yu responsable maintenant dafa am fu mu wax foo xamee ni man foofu laay gën a appesantiru. Mhm. Pape Mamadou Seck est malade. am insuffisance rénale chronique di maanaam mënula toog ay fan yoo xamee ni du ci faju te duñ ko ci jàppale ñun li ñuy sàkku et je pense que moom la le directeur de l'administration pénitentiaire wax ak mm-hmm. ñi nga xam ni ñoom ñoo liggéey ak moom ba ci médecin bi nga xam ne moom moo yore wàll woowu mooy Pape du Seck na dellu weddi tuuma mm-hmm. mais surtout mu mën a faju parce que dañu ko génne ci euh, kaso parce que xam nañu ne wér-gu-yaramam liñ naan euh, il a une santé qui est incompatible avec les rigueurs carcérales ñu jële ko ci kaso bi yóbbu ko feneen foo xam ne dañ ko fay denc waaye dinañu mën a saytu wér-gu-yaramam muy ci pavillon spécial euh, bu euh, hôpital Aristide Le Dantec nga xam ne moom loolu moom mooy liggéeyam également mooy détenu yi wala ku ñu téye sa wér-gu-yaram sooxee ñu mën la fa téye saytu sa wér yaram Mhm. contrairement à ce qui s'est passé avec euh, Mankabou mais lu soxal Pape Mamadou Seck je pense que ay mbokkam également bu dee xam nañu ci fu mu ne ak ci lu mu ne c'est une question de survie c'est une question d'assistance à personne en danger mooy nañu fexe mu mën a dem au moins faju ji te comme ni ko directeur de administration pénitentiaire waxee mais il est encore présumé innocent c'est la règle présumé innocent mën na dem fexe ba ñu weddi tuuma yi tegu ci kawam mu ñibbi ci ay mbokkam nit tey nañ ko fi ci kaso ñu dem àtte ko xam ne kii deful mu am non-lieu wala ñu teggi lépp lu ñu tegoon ci tuuma ci kawam la vie elle est sacré sa vie comme la vie d'un autre est sacrée nañu fexe ay mbokkam wala ku xam ci lu mu ne mën a ñëw wax ak moom jébbalaat ko yoon lu ñu war a def ci moom moo def deful moom moo koy leeral peut-être avec des faits yoo xam ne dañ ko mën a dañ ko mën a euh, dindi tuuma yooyu ci kawam mais le plus important mooy mu mën a faju et c'est dans certaines conditions seulement qu'il peut au moins euh, sauvegarder sa vie ay mbokkam tamit euh, aar ko parce que bu ñu ko deful li may wax c'est une non assistance à personne en danger, en danger. parce que c'est une personne qui est en danger voilà ñu leneen lu soxla bi la jotaay xibaar coow lu am sa Malicounda centrale bu fiol bi xam ngeen ne askan wa ñu ngay joxoñ baaraam autorité yi nee nañ nag wàllum menace la si seen ak wér yaram fu rawatina nag kañ sa gën a joxoñ baaraam mooy maire Maguette Sène bu commune ba si genn taskatu xibaar yi la askan wi kon yëkkati nee nañu nag soo moytuwul booy boycotté list bu coalition Benno Bokk Yaakaar sa Malicounda ñu ànd si Alioune Badara Sonko mu nekkoon ak janoo ak taskatu xibaar yi nga xamante ne mënoon nañ ci nemmeeku population yi mouvement citoyen ak ay parti politique ñoom jamono ji li ñuy naqarlu mooy centrale bi ñu samp ci Malicounda ndax dañoo jàpp ni baaxul benn yoon ci wérgu yaram askan centrale boobu dafay indi pollution atmosphérique centrale boobu dafay indi pollution sonore centrale boobu lu muy xëcc ci ndox yàggatul Malicounda bu amati seen teen yi dina tari. bu taxkee moo gën a moo gën a metti sax tax bi xam nga euh, kii dafa ne bu taxkee ñun fekkee ne ñu ngénte bi nga xamante ni bu ñuy tudd turu doom ji dañoo noppi bu ñu machine di fay ñu doog a tudd. ci la jafe-jafe nañ ci tamit ñàkkum ndox ak ñàkkum courant bi nga xamante ne moom lañ nemmeeku ci commune bu Malicounda. daara de nécessité ndox ak courant defe naan dara ëpp ko ci dundu doomu aadama donc loolu jigéen ñi ñu koy jooy. Malicounda mënut a am ay lu toll ñetti. usine ñuy liggéey courant mun ay centrale ba pare ñun ñuy am ñuy nekk ci lëndëm <coughs> mënul ne. en tout cas ñoom li ñu décidé mooy daal di voté contre liste coalition benn Bokk Yaakaar ci les élections législatives d'ailleurs sax jëm nañ jokkoo ak maire bu na di Maguette seen ngir am réaction ci les accusations waaye suñu jokkoo mu jëwul antu focus assemblée nationale ni ñu koy defee ci li jongante législative yi na campagne électorale bi tey jii treizième législature bi la ñuy waxtaanee jëm ci dossier bu nga xam ne doonoon na lu ñu gën a waxtaanee sa assemblée nationale mu di mbiru 94 milliards yi dossier la bu atterrir doon sa assemblée nationale euh, député bi di euh, Djibril War bokk ci majorité bi moom moo leen saisiroon moo mel ni kon treizième législature bi euh, nag joxoon mandat juróom-ñaar ci ay député ngir ñu andi ci ay leeral jëm ci ab détournement bi nga xam ne dañu doon tudd Mamour Diallo ñu dikkaat si ak fàttali ànd sax day di me ndaw mbirum 94 milliards bokkoon na ci li gën a fës ci treizième législature bi di xëccu di jëm ci jeex ndax dañoo taxawaloon ab commission d'enquête parlementaire ngir saytu rek mbirum détournement gannaaw ba Ousmane Sonko yëkkate ay kàddu tuuma teg ko ci ki fi nekkoon directeur de domaines di Mamour Diallo ci loolee sax la député bi di Djibril War bokk ci majorité bi daal di bind assemblée nationale ci loolu sax ay personnalités yu bëri déglu nañu leen ci ñu ci mel ni ay journalistes ay fonctionnaires ay banquiers ay notaires ak tamit ay héritiers wu ñi moom titre foncier boobu Mamour Diallo itam ak Tahirou Sarr Sarr assemblée nationale déglu leen ci dossier bi Ousmane Sonko moom dafa lànk tëdd ci suuf donte waxoon na ni nag moom am na ay preuve yoo xam ne fuñ ko woo dina ko génne waaye moom la mu wax rek mooy assemblée nationale bi dafa tëddeewul benn yoon njaaxaanaay moo tax wuy jiw leen teewul nag commission d'enquête parlementaire bi def na liggéeyam ca cappaandaw la nag président Cheikh Seck daal dina jébbal ab rapport boo xam ne nii lañ ca def rek mooy député yi gannaaw ba ñu dégloo ñu séq boobule dossier amul benn fee buy dëggal tuuma yi nga xam ne Ousmane Sonko teg na ko ci kaw Mamour Diallo gannaaw ba liggéeyam nag interprétation yi bari lool waaye ci nouvelle yi ñu mujjee am rek yoon daal na daan état bu Sénégal ngir mu fay kii di Tahirou Sarr 94 milliards yi ba noppi nag mu war koo damp itam juróomi milliards ndax li yoon wax rek mooy titre boobu nag ki ko moom mooy Tahirou Sarr Cour suprême itam dafa débouté Ousmane Sonko ci affaire 94 milliards boobu. ñu waxtaanee kon wàllum parité sa assemblée nationale xam ngeen bi ñu ko tàmbalee jëfe ba euh, ci fii ci réewum Sénégal ñaar ci ay législature rek la tombeel mu di douzième ak bi ñu gis ne tax na nag yokkute jigéen ñi sa assemblée nationale bari na waaye nag kenn du respecté parité jëm ci bu ñuy installé bureau yi sa assemblée nationale treizième législature bi également loole la ñu nemmeeku ñu ànd see Fatou Lambe Diop ñu dugal ko ci assemblée nationale ci atum 2010 loi parité ñu daal di koy njëkk nag tàmbale euh, ci euh, douzième législature 2012 2017 ba tax na li mu jigéen ñi daal di yokk foofu ci assemblée national ci fanweer ak ñett daal di dem ba juróom-benn fukk ak ñeent ci ay député maanaam téeméer boo jël ñeent fukk ak ñett yooyu toftal loolu ci limu député yu toll ci téeméer ak juróom fukk waaye nag ñu mën a wax ne que ci bureau bu assemblée national bu douzième législature bi parité bi kenn respecté wu ko euh, ci bureau bi le deuxième vice président bi niki troisième vice président bi ñoom ñaar ñëpp di ay góor ci dénoncé woon ab violation flagrante bu loi 2010 ci parité absolue ci fukkeel ak ñetteelu législature bi li mu député yi daal di jóge ci juróom benn fukk ak ñeent daal di ñëw ci juróom-ñaar fukk terewul taux de représentativité dafa sax mujj wàññeeku même bu fekkee ne député yi dañoo jóge ci téeméer ak juróom fukk ñëw ci téeméer ak juróom benn fukk ak juróom téeméer boo ci jël rek ñeent fukk ak ñaar yu toftal ñoom ñoo ci nekk ay jigéen mu mel ni ne nag lu jëm ci wàllu parité absolue ak intégrale nekk na loo xam réalité ci biir assemblée nationale même bu fekkee ne nag loi bi tax na jamono ji jigéen ñi am fa place. assemblée nationale moo di ndaw ndawi réew mi ay député yu fa war a teewal askan wi waaye dañoo gis ne ña fay teew bariwul absentéisme bi sàkkan na fa lool wala bu ñu fay teewee nelaw la ñu fay nekkee wala tàccu wala defante euh, loolee nag dafa mel ni kon askan wi yitte woon nañu yeneen i député yu wuuteex li ñuy faral di gis ñu ànd seex euh, Fatou Abdou Ndiaye douzième ak treizième assemblée nationale bi li ci gën a fës mooy ay député yoo xam ne dañuy lànk toog seen kër ne duñu liggéey si ay député yoo xamante ne telewul ñi ngi jot seen i ay ndàmpaay ak seen avantage te moo ne réglement intérieur bu assemblée nationale wax na ne bépp député bu war a liggéey si teew assemblée nationale te ñëwuloo wax nañu jël ay daan teg ko ci sa kaw ñenn ñi sax la ñuy joxe ne moom moo tax nangu ñu ñëw bokk na ci nee na anam ga ñuy liggéeyee jaarul ci yoon ñeneen ñi di wax ne débat ba ci assemblée nationale moo wàcc lool xastante ak ngaññante rek la ñu fa nemmeeku waaye ndax loolu raison la bu war a tax député bi bañ a teew assemblée national déedéet ne député bu ne war nga teew ngir askan wi nga xam ne ñoom ñoo la tànn nga mën leen a défendre ci pencum ndaw réew bu Sénégal tey nag jot na Sénégal am assemblée nationale bu wute ak yi nga xam ne moom moo daan am bugguñu benn yoon assemblée national boo xam ne député yi du ñu fa teew lu dul rek dañu ne caméra yi dañuy ñëw taskatu xibaar yi tàllal leen seen i micro ñu def show ci loolu it am na sax ñoo xam ne daanaka la ñuy def moom mooy ñàkk jël du benn yoon ne am na ay député yoo xam ne ci jurub fukki at du benn yoon loo xam ne dégg nañ ko ci seen i kàddu dañoo nekk assemblée nationale rek ngir yëkkati seeni loxo ngir wane ne ànd nañu ci votu loi yi ñaari catégorie député yii sénégalais yi bëggatuñu leen ci fukk ak ñeenteelu assemblée nationale bi nga xam ne war nañu ko tabb ngoon fanweeri fan ak benn ci weeru juillet ni ko Fatou Abdou Ndiaye waxee Birahim ay député yu nga xam ne nii bu ñu ñëwee tey balaa ñu ñëwaat yàlla xam ba noppi it bu ñu ñëwee tàcc la ñu fa nekkee du ñu xam sax li ñuy voté lan la loolee moom Sénégalais yi soxlootuñu ko. non seulement soxlawuñu ko mais euh, au-delà je pense que c'est au membres de cette institution mais surtout bureau bi ñoom ñoo war a veiller à ce que absentéisme boobu mën a dakk parce que mais euh, dafa bokk ci règlement intérieur. as assemblée nationale c'est pas parce que dañu nekk session wala nekkuñu session euh, wala ñu nekk session boo ñëwee émargé nu ñu ko mën a waxee ñu ne ñëw na ci session bi nga def fa cinq minutes génn mais am na membre yi ñoo xam ne dañu nekk ci biir assemblée nationale ci biir hémicycle bi fa ñuy voté loi yi fa ñuy waxtaanee ak yooyu. Mm-hmm. mais bu ñu toogee lijjanti wuñu loi yi lijjanti wuñu waxtaan bi ñu ngi seen téléphone ñu ngi seen tablette ñu ngi ci seen i yeneen lijjanti. ñëw ci début bi bu ñu waaj a tëj ñu ñëwaat ñu gis leen. mais on dira pas qu'ils sont absents parce que ñu ngi fa mais leur présence est nulle comme on peut le dire moo tax c'est aux citoyens sénégalais de se choisir leur député comment en veillant à ce que bu ñuy dem di voter bu ñu voter parce que kanamu Mambay moo ma neex mais parce que Mambay jox na ma ci wàlluk projet ci wàlluk ay idée ci wàlluk naka la fas yéene taxawee assemblée nationale loo xam ne man njortu naa ni bu demee dina défendre yooyu les positions mais nga votel nit mu dem assemblée nationale bu ñu toogee weer parce que commencé na nguuru neex na ci moom boo ko laajee pour mu ñëw fekkee lenn loo dañ koy waxtaanee ci ëllëgu réew mi wala ci nekkinu réew mi bu teyee mu ñëw bu suwaa du ñëw am na fu muy toll nga wax ko mu ne la may député wu président diw muy Macky wala président diw mais Ablaye Wade wala man député wu opposition là donc ci je vais m'opposer à tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale ça ce n'est pas bon on a vu des députés yoo xamee ni mais moi je prendrai exemple sur ku mel ni euh, Théodore Chérif Monteil on n'a pas de rapport du tout je le connais comme je connais d'autres députés. Mmh. Mais on a vu que dans sa présence à l'Assemblée nationale, même étant membre de la coalition au pouvoir, ci yooyu euh, ba mu fay ba ba léegi ni bokk en tout cas donte mu ngi yëngu léegi ci euh, Union citoyenne Bunt bi. Mhm. mais on a vu fu mu nekkoon bokk que doon na def wala wax noo xamee ni yenn saay du sax arrangé peut-être la majorité mais dina ñëw sukkandiku ci. ay régle wala ci ay text yoo xam ne yu leer la on a vu euh, Ousmane Sonko député à l'Assemblée nationale yenn saa mu ñëw taxaw député yu majorité bi ne duñ sax fekkee waxtaanam wala waxam wala ay kàddum on a vu d'autres députés Aïda Mbodj personne ne peut dire de de de de de cette dame qu'elle ne joue pas son rôle en tant que député à, à l'Assemblée nationale c'était le cas pour Doudou Wade ci benn période bi mu nekk Assemblée nationale il y a des exemples à donner ci ay députés yoo xamee ni non seulement dañuy présent mais dinañu def seen kémt lay kàttan bu dee ci wàllu défendre benn loi boo xamee ni jàpp nañu lii buñ ko défendre dina baax ci askan wi parce que le président de la république wala l'exécutif day ñëw ne ni man nii la soxla pour mën a liggéey pour jëmale réew mi kanam surtout tous les plans léegi comme lii laa soxla damay ñëw yónnee leen li ñu wooyee ay proposition pour ñu de votel ma loi yooyu pour que mu mën a am euh, li ñu wooyee lu ma mën a téye pour liggéey li ma bëgg liggéey ci ci wàllu woowu mais que les lois ou que ce que l'on vote à l'Assemblée nationale qu'on ne le vote pas ou qu'on ne mette pas des lois juste parce que dama contre mbay naa créé benn loi boo xam ne du ko arrangé mais on a vu même à l'Assemblée nationale ñu ne ni defatuñu président pour cinq un an la woon renouvelable parce que tout simplement épée de Damoclès lañ bëggoon teg ci kaw président ba fa nekk pour wan ko ne soit da ngay ànd ak man xayrun àndoon ak man euh, fii ak un an ma dàqalu dàq la teg fa keneen donc ngay jël ay loi di ko di ko voté juste pour euh, am koo xam ne da ko bëgg na saxal ci biir assemblée bi wala nga woon ko boppam Macky Sall l'a subi su Wade il a fait subir au début à Moustapha Niass pour lui dire attention un an laa lay votel lañ lay def président assemblée nationale mais bu ñu demee ba xam ne peut-être que kii mën na ànd ak ñun te day continuer di ànd ak ñun. ñu hmm. doog a loolu absentéisme moom c'est aux de sanctionner ku doon absenté ñëw tey ne la dama bëggaat nekk député mais kooku da laa koo xamee daaw ko gis assemblée nationale xam nga ni diw c'est un député bind nañ ko ci liste yi bokk na ci député yi waaye mosoo ko gis plénière bu amee session bu mënee am la ngay seetaan ci télé doo xam sax kooku nan la melate mu ñëwaat tey nag ñu ngi jëm ci ay élection législative mu ñëw ne jox leen ma député bokk joxee lu mu lay defal il reviendra ci même li mu daan def travers yooyu mu doon def il faut que les gens également puissent voter selon un projet de société des proposition mais pas parce que diw neex na ma diw neexuma jaajëf Birahim Diadji Touré ñu bàyyi ko mu dem rédaction ñu ngi koy xaar Pape Man Demba daal di dikk ñu àndax moom